naaw loolu ak artu jëmale ci chaîne boobu noonu faree ci France ñu jàpp que ni nag euh, question bi ma la ciy laaj rek ñoom euh, ministère de la communication dañu jàpp que ni euh, kii di France 24 li muy def amul équilibre li muy traité actualité politique bu Sénégal amul équilibre ñu seel ko ginnaaw bi nga xamante ni si interview bi kii di Ousmane Sonko président Ousmane Sonko amal na ko fa est-ce que jàpp nga ni boobu le travail dafa nekkul lu équilibré parce que gis nañ tamit ñenn ñi nga xamante ni si ñi nga faree ci mouvement présidentiel bi dañu fay def ay waaw en fait euh, déjà média tubaab yi ñoom xam nañu lu ñuy def man loolu laa jàpp donc euh, am nañu expérience bi euh, xam nañu lu ñuy liggéey yàgg nañu nekk ci seen euh, ci seen manière de de de de fonctionner muy ay RFI ay France 24 et cetera tous les autres donc gouvernement wu Sénégal su sentiree ne dafa am kii bi xaw naa sourire sax bi ma déggee un peu loolu parce que tey. Euh, média wu Sénégal yi am na su ñoo xam ne amul amul équilibre tey boo gisee ku mel ni RTS opposant amu fa amu fa kàddu te pourtant bon ñu ngi fonctionner normalement donc tey Ousmane Sonko interviewé ne ko Sénégal seetaan nañ ko bare na ay ñu ko ay ñu ko seetaan et tout ça évidemment dina dina yëngal euh, le pouvoir loolu am na bon maintenant équilibre de média de kii bi parce que bon li ñuy li ñuy reprocher peut-être mooy euh, xëy na dafa liñ ko liñ ko liñ ko waxal day mel ni ñoom di ñu di ñuy dëggal lu mu bëgg a wax moom et bañ a dëggal li gouvernement bi di wax donc je crois que ñoom si loolu la ñu wax donc loolu aussi évidemment Sénégal aussi pays indépendant la gouvernement bi am na droit aussi xool li nga xam ne du yoon si information bi ñu teggi ko ne lii tamit waroo waroo waroo ko mën a def parce que ñun bu ñu joxee information officielle de état en un état donc il faut mhm. que tamit ngeen nangul ñu loolu par rapport à sa donc foofu aussi je peux être d'accord sur loolu mais euh, le fait de dire que information est trop tendancieuse bon Euh, je pense que c'est peut-être euh, surtout aura bi interview bi am xëy na moo moo mën a joxe loolu mais mais gisuma si leneen. Euh, Soyez-vous. alors le gouvernement le, d'abord le ministre euh, Moussa Bocar Thiam man ma koy réclamer suñu caméra ba mu tëjoon fale euh, à Ourossogui gi C'est un ministre de, en charge de la tutelle de, de la presse qui a fait la caméra de Kewulo TV. donc ñu koy réclamer suñu caméra ba léegi ah du ñu tant que yaa ngi ministre de la de la communication nous on est réticents par rapport à votre fonction de ministre de la communication puisque vous avez caché notre caméra il manque de courage pourquoi je dis il manque de courage c'est vrai que moi je ne défends jamais euh, les médias étrangers face aux médias nationaux mm-hmm. quand le gouvernement les journalistes sénégalais on bo soxla interview pour ñoom ñu wax da ngay daw seen ginnaaw ba daa ba dee mais dootoo ko doo ko gaaw a am il faut nga gis ni seen intéret dafa menacé ñu doog a accordé ay interview ñu doog a ciblé ay organes yoo xamante ni ñoom bu dinañ fa mën a dem pour wax seen soxla maintenant depuis quand le gouvernement di taxaw 2021 Aïssata Tall Sall taxaw na fële si France 24 nee na force occulte sénégalais 2021 la commencé kii euh, l'autre là le ministre de des forces armées wax na ci France 24 ñoom depuis 2021 ñu ngi wax ils n'ont jamais eu, eu, eu le courage de dire à la France 24 yaa ngi interroger le gouvernement seulement tu na jamais intéressé tu t'es jamais intéressé à interroger l'opposition mhm. pourquoi en tant que ministre de la communication c'est ça qui réclame non foofu la waroon wa commencer di wax ni vous faites une couverture tendancieuse vous génn euh, ngeen a génnee kese le gouvernement opposition amul accès ci yéen defe naa foofu la ñu ko naroon commencé defuñu ko bu fekkee ne il est courageux dafa war a taxaw ne mu ne RTS en tant que ministre de la communication RTS c'est un organe public ne faites pas une couverture tendancieuse il mhm. faut donner la parole à tous les citoyens parce que c'est un média public que tous les citoyens doivent y avoir accès defuñu ko maintenant tey bu taxawee mu ne euh, couverture tendancieuse moi France 24 ce n'est pas mon organe RFI ce pas mon organe man mun naa toog ci biir année biir lum duma gaaw déglu see duma gaaw euh, euh, regarder France 24 dama gaaw regarder loo xamante moom moo di déglu loo xamante moom moo di RFI moi si je me lève j'écoute la, la presse locale je m'intéresse que la presse locale maintenant nag mun naa am ay besoin particulier d'information complément d'information ma dugg daan d'autres chaînes mais mes chaînes préférées c'est les chaînes parce que pour moi France 24 c'est un média boo xamante ni c'est rattaché au ministère des affaires étrangères de la France est-ce que tey RTS fera une couverture contre la France bu fekkente ni Sénégal gisul loo xamante ni moom moo di ses intérêts pour la France on nous dit on nous dit boo boo ñu nos enseignants nous disaient à l'époque les que les puissances n'ont pas d'intérêt n'ont pas d'amis ils ont les intérêts maintenant France 24 moi je le dis à plusieurs reprises lan la ñuy génne Afrique le plus souvent à l'époque la famine la mm. guerre ak lan ak lan gilets jaunes yi l'époque def nañ manifestation ñaata temps laata France 24 du ko génne réseaux sociaux yi moo sauvé woon Français parce que c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux ñoom ñoo daan génne image yi ba mu demee ba dernière minute la France 24 commencé intéressé di di wane di xewu France mm. maintenant ñoom bu fekkante ne ñu ne Afrique ñu ñu ngi reyante foofu. Mhm. c'est pourquoi moi je jamais à ça maintenant ce qui est ce qui est important pour nous journalistes c'est de de protéger aussi l'image de l'Afrique maintenant ñoom defuñu ko ñoom ñoo doon wax lu leen neex. tey jii mu tourné contre ñoom ils n'ont qu'à l'assumer également waaye nag lu ñu xamante ne fermeture facile bu ñu amoon ci Walf tëj facile bu ñu amoon ci journaliste sénégalais loolu moom mënuñu ko am ci journal presse internationale le terrain mais journalistes locaux yi la ñuy dóor protéger les journalistes étrangers c'est pas c'est eux qui le font non ils n'ont qu'à assumer maintenant ça bu fekkente ne c'est là-bas le courage ils devaient nous protéger à défaut de nous donner la priorité absolue mais ils devaient nous interroger et nous protéger troisième chose le 1er juin 2023 bi passé le gouvernement a tenu une conférence de presse en 11 heures avec la presse étrangère mm-hmm. mën na la presse locale 4 heures du matin kay la def déclaration pour, pourquoi ce manque de respect c'est eux qui ont donné autant de d'importance à la presse étrangère te la presse étrangère pour tourner contre ñoom mais le wolof di quoi boo yaree sa xawma lan waaw mm-hmm. acca ah, mu ngi noonu ñoom ñoo leen def défendre de tey ñoom ñoo leen ñu ne ñoom dañoo doon vidéo xamante ni dans leur communiqué dañoo ne France 24 dafa génne loo xamante ni moom moo di discréditer la communication de la police. mais là-bas moi en tant que citoyen bu ma annonce gisee communiqué police day def conférence de presse en tant que citoyen dama ne oh ils ne doivent pas. c'était pas le moment il allait affaiblir l'institution de la police parce que boobu ñoom ils ont un objectif à atteindre le gouvernement le ministre de l'Intérieur est sorti il a parlé mais non pourquoi il n'a pas maintenant mënul épargner police de sa communication leen ngeen wax. mais lan moo indi effet boobu tamit parce que dañoo doon dégg ni indi yi di bind si réseaux sociaux le commissaire Ibrahima xawma lan la démission posé na sa démission ñu bañ koo jël ñu ne le commissaire bi dem na ngeen di wax war ñu ko gis nga tension politique bu amee yow mi nekk devant assume naa ta position de politicien nga wax loo xamante ni moom moo la arrangé bu fekkee da mënoo wax la réalité des faits mais bu ñu ko defulee mais ils veulent porter ça à la police mais c'est la police qui qui s'est discréditée yow nga ne kii askan wi attention boo leen di wàccee di manifester si biir manifestation bi am na ñoo ñeneen ñoo xamante ne dañoo ñëw pour faagaagal leen police moo wax loolu de si seen conférence de presse alors ñu gis ñu ne ñii xamante ni sont pour vous c'est une menace pour vous ñu gis ci oto ñu dugg ci oto yoo xamante ni policiers ñoo fay ne. ça ressemble à quoi qui a qui a une communication tendancieuse ñooma ils n'ont qu'à revoir leur copie gis nga nguur neex na trop mais la stabilité du pays moo ko gën a neex suba mais euh, ñaat ana Serigne Mbacké Serigne euh, Serigne Mbacké Ndiaye il te pas ministre tey mu nga togg këram di xaar donte mu nga saxaar ba léegi mënu dugg bëgg dugg mënul dugg ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nguur neex na mais en un certain moment nañu xam ne il faut une limite maintenant pour protéger la stabilité du pays ñoom ñoo ko commencé nag ñu ngi ne di leen mbëkk nañu xool la finalité ça sera quoi ci yow ba léegi rek. Euh, hmm. uh-huh. bu fekkee da nga ci yokk. waaw en fait li mu wax euh, je pense que mooy li ñu wax sànq ah comme hmm. j'ai dit parce que jëloon naa man exemple RTS moo xam ne exactement une communication très tendancieuse lay def comme il dit certes média public la euh, aussi bien certes état bi moo war a couvrir les activités et cetera de hmm. l'État mais aussi il faut donner la part c'est ça la démocratie il faut aussi que opposition bi am fi wàll am lu mu wax. mais loolu amu fa par exemple donc tey médias étrangers yi aussi lu ma mën a xam mooy Sénégal am na limite yoo xam ne lu mu mën a ñëw si saa si di euh, imposer yenn médias locaux yi loolu comme ni mu ko waxee mënul nekk par rapport aux médias étrangers loolu tamit mi ngi ci donc euh, les médias sont libres et de dire ce qu'ils veulent <laughs> je pense que li leen gën a tiitel mooy les un million de vues parce que en un temps record la vidéo est très rapidement remontée mm-hmm. parce que man ba léegi maa koy wër parce que. man en réalité suivre ma ko. Ah, bu ñu gisee ni gars yi def seen capture d'écran yi di wane le nombre de vues nombre de commentaires. sans ma la ko je me suis intéressé. mais man accidentellement laa dugg France 24 di déglu loo xamante ni moom moo di les informations sur Afrique. ba tey dama ñëwee ci waxtu bi jot nañu ci dernière question bi rek muy euh, loolu nga wax sànq rek dem na ba jël record bi nekk à un million loolu noonu la mën a yokkal Ousmane Sonko au niveau international. alors gis nga Ousmane Sonko le parti Pastef ñoom dañoo dem ba comprendre un certain moment boo xoolee bu ñuy def conférence de presse fu kese la ñuy wax boo nekkee benn organe boo xamante ne da ngay bëgg a def euh, la traduction en français tu es obligé de faire la sous-impression journalistes yi comprendre nañu lu ñu lu ñu bëgg a wax maintenant loolu à un certain moment nag ils ont abandonné le terrain aux aux médias africains qui au au politique au pouvoir. léegi média africain boo leen nekkee ak ñoom sur euh, dans les couvertures yow journaliste yoo xamante ni boo fas amee ay connaissance par rapport aux correspondants yoo xamante ni sont de la sous-région dañu leen naan kay traduire ñu loo xam ne li ñuy wax mhm. wala ñoom bu ñu paree ñu jox leen communiqué bi maintenant il faut nga accompagner leen par rapport bu ñuy couper seen i élément nga ne parti bi bu parti bi lii la wax maintenant ñoom dañoo dem moment boo xamante ni moom euh, le parti Pastef muy Ousmane Sonko muy Bassirou basir Diomaye fay muy El Malick bu ñuy def communiqué communication wolof la ñuy wax rek dem seen yoon ñeneen ñi commencé nag assumer kii jël plateau yi buñ fu ñu mënta dem ñu ne on a affaire à des terroristes à des salafistes ainsi de suite ainsi de suite maintenant ñoom bu ñu demee ba comprendre il faut men il faut il faut occuper maintenant le terrain dans son ensemble mën nekk terrain national mën nekk terrain international bu ñu def seeni communication ñoom ils ont très bien corrigé leur communication en certain moment dañuy wax français da wax wolof wax anglais ci seen biir maintenant communique aux conférences de presse depuis certain bu ñu commencé loolu ils ont vu ils commencé à voir maintenant comment ça fait mais euh, comment ça donne le résultat escompté bu ñu doon xaar même Macron n'avait pas les un million de vues defe na sur ses dernières amu ko woon maintenant nag c'est Ousmane Sonko maintenant qui est venu euh, mu am mu battre ce record là derrière il y a un pré il est derrière un autre président que j'ai oublié le nom maintenant bu fekkee ne loolu am na sa peut maintenant faire face parce que ça peut faire mal parce que au moment où on parle de l'arrestation de Ousmane Sonko tout le monde s'intéresse sur le cas du Sénégal. Au moment où le président ne sera pas candidat, tout le monde s'intéresse sur le Sénégal. Au moment où on parle de au Sénégal, tout le au Sénégal. donc effet yëpp boo boolee ñaar ces trois effets la loolu dina nekk loo loolu moo may boum à Ousmane Sonko demee mën na def benn communication te mën na am benn influence bu xamante ni mo surtout dina mën a am euh, pression pression de plus la sur les gouvernement sur le gouvernement du Sénégal naka la nekkee président de plus Ousmane Sonko dans sa communication dafa ne il faut il faut lever les équivoques je ne suis pas en résident surveillée je suis en séquestration parce que ba léegi amul benn document buy prouver ni moi je suis sous une condamnation des temps résidence surveillée ou bien sous une euh, une note administrative aussi ni wax na et en même temps que mu am autant de hmm, euh, am loo ci yokk monsieur Ndiaye. waxtu yi moo ñu wax. c'est-à-dire hmm. que mooy li may wax rek depuis le début. c'est-à-dire actuellement même la les, la presse est, orientée en fait quelque part parce que actualité mooy le le journaliste di wut euh, actuellement l'actualité on sait lu mu doon euh, ce sont les problème judiciaire Ousmane Sonko évidemment aussi avec li ko dal yëpp depuis le début évidemment ça attire ça attire naturellement la presse locale comme la presse étrangère donc ça fait que forcément lépp lu nga xam ne tey euh, ay déclaration am la wala loo xam ne tey interview am la c'est écouté pour xam mbir mi fan lañ ci toll ak fan lañ ci jëm mhm. donc loolu la bon c'est vrai que ñu ngi koy ñaanal mu ñëw ñëpp bokk euh, ñu def euh, une élection large Euh, boo xam ne c'est un nouveau c'est un événement au Sénégal actuellement loo xam ne c'est la première fois lii de am donc euh, nañ ko nañ ko yaatal ñëpp mët si bokk et que incha allah ñu ñu gagné ko. voilà euh, merci monsieur Ndiaye li ñu cëraloon ci waxtu moom daal di jeex dañuy daal di rek <laughs> tàggatoo waxtaan bi amoon na solo trop son yi bu dañ lay bàyyi nga tàggoo. alors di réclamer rek la fin du bâillonnement de la presse ça fait mal quand on voit que journalistes yi am ñu jàmm ci Sénégal.